ngi leen di dalal jàmm fii ci assemblée nationale euh, di kontaan bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw euh, ci cadre 8 mars nga xam ne c'est le tout le mois de mars moom la ñu jagleel jigéen ñi journée biñ ci gën a ràññee mu gën a fës mooy le 8 mars donc ñu ngi profité aussi ci 8 mars boobu euh, di célébrer toute les femmes du Sénégal particulièrement di célébrer Madame la Première daam Marième Faye Sall mais di célébrer les femmes euh, du département de Mbour bi nga xam ne falaa dëkk di célébrer aussi la femme parlementaire mais également di euh, célébrer seen directrice muy sunu mag di sunu xarit euh, MNF ñu ngi koy wax bonne fête euh, des femmes di ko wax toutes les femmes du Sénégal ak yow mi nga xamante ne Aïcha yaa ñëw tey di seq ak ñun waxtaan bi nga xamante ne euh, ci wàllu jigéen la si mois bi nga xam ne moom lañ ñu jagleel ñun jigéen ñi. sant yàlla parce que euh, du lu yomb dañuy wax ne falu yomb na benn yoon mais faluwaat dafa xaw a jafe loolu nag euh, comme li ñuy wax askan wi lañu koy njukkale ginnaaw ba ñu santee gërëm. ki nga am ne moom moo am confiance si ñun ba tabb ñu ci list ndax xam nga bala ngay nekk député dañu lay tabb ci liste euh, ki ma tabb ci liste muy le président Macky Sall maa ngi koy sargal ndax moom euh, jar na sargal ci 8 mars ndax bari na avancé yu Sénégal am tey ci wàllu droit des femmes ci wàllu autonomisation des femmes moom liggéey na ko liggéey bu am solo ndax parité boobu mu appliqué nga xam ne loi bi ñu ngi ko voté woon en 2010 pré plus précisément 10 mai sous le régime du président Abdoulaye Wade war nañ leen a sargal ñoom ñaar ñooñu ñëpp ndax tey bu ñu amee une présence massive des femmes au niveau de l'hémicycle loi boobu moo tax bi biñ gannaaw bi ñu ko voté ci 2010 président ñëw en 2012 def liñ naan application effective de cette loi donc bi ñu amee kóolute googu ñu ci liste ñu nekkoon douzième sur la liste nationale proportionnelle yàlla def ñu jàll nekkaat fii député à l'Assemblée nationale dañu koy jagleel askan wi encore une fois mais di ko jagleel ki nga xam ne moo am confiance bi ba tabb ñu ci ay liste ba man ba ñu mën a siégé waat fii euh, au nom du peuple fu ñu fu ñu toll s'arme de courage parce que politique dafa laaj ay sacrifice yu baree baree bare may gën a encourager jigéen ñi ñu gën a def politique parce que politique du lenn lu dul nekk au service exclusif des population maanaam fi ngay nekk di li tax ngay politique mooy pour le bien-être des des des populations politique li tax nga koy def euh, mooy da ngay am conviction am engagement am surtout si benn leader boo xam ne am nga ci moom confiance ne moom jàpp nga ne il peut il peut conduire les destinées d'un pays wala sunu réew bi ñu sax bi ñu bokk muy Sénégal may gën a encourager jigéen ñi parce que seen baat dafay dafay dafay porter te te tamit ji ku ne jigéen aussi xam ne le leadership le leadership féminin aujourd'hui et est affirmé partout moo xam ci politique moo xam ci médias yi ngeen nekk nii ndax tey seen directrice xam ngeen ne jigéen nga jigéen la yéen ñiy nekk ak moom di liggéey ñu ci ëpp gis nañu ne ay ay jigéen ngeen foo dem rek tey secteur par secteur jigéen ñi ñu ngi wane seen bopp ñun nag domaine bi ñu nekk gis nañu tamit rôle bu am solo bi nga xam ne jigéen ñi am nañ ko ci langue politique bi parce que li olof Njaay naan ku dee dañ laa ñeme tey leader politique boo fi gis su mënee li mu mën c'est grâce à l'engagement des femmes boo xam parti politique bu mu mënti doon moo xam leader bu mu mënti doon dans les parti politiques toutes les femmes ñoom ñoo fa nekk di xeex xeex bi bu dee mobilisation ñoom ngay gis bu dee présence physique ñoom ngay gis bu dee combat bu ñuy mener sur le terrain ñoom ngay gis kon tey jii tous les leaders politiques war nañu jóg à travers leur formation politique sargal ñi nga xam ne ñooy les femmes politique de leur formation de leur parti politique euh, wax naa ko léegi loi bi tax tey nga gis fii ci as euh, assemblée nationale ñu am 76 femmes parlementaires ci 14e législature bi mooy la loi sur la parité ginnaaw ba ñu ko voté en 2010 en 2012 président Macky Sall bi mu ñëwee dafa def l'application effective de la parité ba tax na tey en 2012 ba 2017 muy la euh, douzième législature amoon nañu fanweeri jigéen euh, avant avant mille 2012 amoon nañu fanweeri jigéen ak ñett ci assemblée nationale mais 2012 ba 2017 am nañu juróom-benn fukki jigéen ak ñeent maanaam 64 femmes parlementaires te loi boobu moo ko may jigéen ñi ba ñu mën a teew fii ci assemblée. ci quatorzième bii ñu nekk nous som soixante seize femmes parlementaires maanaam juróom-ñaar fukki jigéen ak juróom-benn muy lim bu takk bu am solo bu ñu jëlee tey bureau assemblée nationale bi am nañu ñeenti vice présidente ñetti secretaire élu ak benn femme boo xam ne moom mooy deuxième questeur bu ñu jëlee commission yi nag daanaka si fukk ak ñeenti commission permanente yi assemblée am ñaar dong la ci ay jigéen jiite. muy commission bii ma yor muy la commission santé population affaires sociale et solidarité nationale ak beneen bi nga xam ne c'est les affaires économiques sunu yaay Roqe Diouf jiite ko loolu nag nga gis ne am na manque d'équilibre maanaam parité bi amul ci commission yi loolu nag euh, à travers sa antenne damay profito euh, di ñaan ci renouvellement yi ñuy jëm ndax at mu ne dañuy renouveler bureau assemblée nañu xalaat xoolaat fexe ba ñu am sept femmes présidentes ak sept femmes sept hommes président de commission dana dana gën a taaral euh, taxawaayu jigéen dana gën a taaral loi bi nga xamante ne moom mooy la loi sur la sur la parité beneen loi bi nga xam ne vote nañ ko fii à l'Assemblée nationale ñu ngi ko voté 2013 loi boobu mooy la loi sur la nationalité ñëpp xam nañ ne jigéenu sénégalaise daanul jox nationalité doomam wala keneen koo xam ne du sénégalais te fekk ñoom ñaar ay wéy denc lañu. loi boobu fexe nañu ba président Macky ànd ak jigéen ñi ak parlementaire yu douzième ñu voté ko muy loi bu am solo. ndax jigéen bi dina mën a may tey nationalité doomam ak jëkkëram ji nga xam ne du sénégalais pour ñu nekk ay sénégalais comme moom muy lu am solo beneen loi bi nga xam ne moom la ñu fi mujjee voté mu gën a euh, euh, protéger la femme mu gën a euh, dimbali la femme mooy la criminalisation du viol et de la et de la nga xam ne ñu ngi ko voté juillet 2020 bi ñu koy voté ku nekk xam na ne loi bu ñu doon xaar la loi bu am solo la parce que jigéen aussi dafa nekk ku fragile dañ ko war a protéger ci anam yëpp ndax les violences faites au femmes ku nekk gis nga ne ces violences là euh, c'est des violences d'ordre économique c'est des violences d'ordre moral c'est des violences surtout physiques loolu nag suñu amee loi yu mel noonu di protéger la femme jàpp naa ne jéego yu am solo sunu réew mu ngi koy teg ci wàllu droit des femmes fii ci réew mi ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na fu góor taxaw jigéen taxaw na am na jéego yu am solo yu ñu ci teg ci wàllu loi muy cadre juridique bi waane ci wàllu euh, euh, dund bu ñu xoolee agression yi ba tey mu ngi gën a bari bien vrai que am nañu ay loi yu ñuy protéger boo xoolee tout le temps tous les jours des femmes sont agressées des femmes sont violentées physiquement verbalement ou moralement comme ni ma la ko sànq économiquement jigéen ñi ñu ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu baree bare bari loolu nag day laajaat beneen taxawaay bu bees may lancer appel à toutes les femmes muy société civile bi muy femme leader yi muy femme politique yi ñun ñëpp ñu def benn say ni ñu xeexee woon ba am parité tey ñu àndaat continuer taxawaay bi ñu gën ko dëgëral gën a dëggal suñu bopp pour que violence yi nga xam ne ñu ngi koy noté ñu koy exercer ci jigéen ñi ñu gën ko mu gën a wàññeeku bu fekkee ne mënta deñ euh, totalement ci dëkk am nañu prestation am taxawaay bu am solo ci assemblée bu ngeen xoolee ni assemblée bi di tëddee moo xam ci débat yi moo xam ci présence yi gis nañu ne jigéen ñi ñu ngi gën a affirmé wu ñu ngi wax seen xalaat sans complexe moo xam ci nasaraan moo xam ci wolof beneen bi boo xoolee femmes yi nekk député yëpp ay femmes leaders lañu ku ci nekk gox ba nga dëkk tu incarnes un leadership affirmé si sur le plan national it yaa ngi def say jéego donc seen prestation tey bu ñu ko doon noté c'est des prestation très honorables la jigéen ñi di def fii ci parlement bi ndax seen taxawaay mais kaddu yi ñuy yëkkati jëmale ko ci askan bi muy doléance askan bi ñuy porté góor ñu yóbbuwuñ leen yóbbuluñ leen dara ñu ngi def seen liggéey te li ma gën a neex si assemblée nationale ci femmes yi mooy saa bu ñu wootee jigéen ñi ñooy njëkk a teew jigéen ñi ñooy ëpp aussi si ñi teew fii la ñu voté yi protéger femme mais fii aussi comme ni ma ko waxee woon ci bés bi mu amee la ñu gis ñu agressé jigéen fii la ñu gis ñu violenté jigéen te kenn defu ko ku dul suñu ay collègues moo tax ñu koy ñaawluwaat dañuy wax ne jigéen du pour dóor jigéen du pour saaga jigéen kenn du ko toroxal donc combat boobu ñu mënee woon bi ñu agressé suñu collègue Ami Ndiaye nga xam ne dafay nekk woy wu ñaaw ci fii ñu nekk di assemblée national dañu koy wéy di wéyale lu tax ñu wéy di ko def di ko xeex mooy dañu jàpp ne jigéen dañ ko war a protéger jigéen fu mu mënti nekk dañ ko war a wan ne jigéen nga te jigéen ju ñu war a protéger nga moo tax ñun en tant que ay femmes du ñu nangu mukk te du ñu fekkee mukk fu ñuy toroxale jigéen wala ñuy violenter jigéen wala ñuy agresser jigéen moo tax à chaque fois bu ñu amee occasion dañu koy dénoncé donc di wax ni plus jamais ça au niveau de l'Assemblée nationale. jigéenu Sénégal njaay yéen ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen ngi liggéey bu baax a baax ci seeni askan. vœu bi mooy un vœu de paix un message de paix mooy dëkk bi ñu nekk dëkku jàmm la tey bu ñuy wax Sénégal pays de la teraanga c'est parce que dañu nekk dëkk boo xam ne dañu nekk dëkku jàmm d'abord lii suñu symbole principal mooy jàmm mooy la paix am na sunu dëkk yu bari yu ñu wër ak dëkk ci àddina bi. Sénégal bokk na ci dëkk yi ci gën a ndaw mais li ñu gën a ràññee Sénégal mooy notre stabilité mooy notre paix jàmm jooju nag damay ñaan ñépp ñu sàmm ko mais nag jigéen ñi am ci rôle bu ñu war a jouer mooy li ñu gis ci ay dérives ci internet bi li ñu gis ay dérives ci société bi nga xam ne ñun ñooy yaay ñun ñoo ne ci kër yi ñun ñooy yar ñun ñooy sàmm ñun ñoo yor lépp nous sommes euh, l'alpha et l'oméga may ñaan ñun jigéen ñu taxawaat bu baax ci biir kër yi taxawaat ci yaru xale yi taxawaat bu baax ci éducation njaboot gi parce que xam naa ne ñun bu ñu taxawee taxawaay bi ñu war a taxaw ci euh, askan wi dana am lu bari loo xam ne dana dana mën a changer ci comportement yi ñu gis nga xam ne c'est des dérives yu société bi di dund tey